taawu maam Cheikh Ibrahima Fall di koy ñaanal ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall bisam bii barkeb bàyyam ba tëdd gi mu tëdd fii ak mboolem soldaar yi nga xam ne ñoo ñëwoon ci guerre bi saa borom yokk leen ay leer te taaf ñu seen barke. ndax nee naa France faw mu bëri bay Fall ndax taawu Cheikh Ibrahima Fall fii la tëdd mu Serigne Modou Fallou Fall ñu war ko koo fàttalikuwaat nag muy ñeenteelu édition bi ren nag. ñu duppee ko sëriñ Fallilou Fall ndaam àjjana sëriñ Fallou Fall moom soxna Fatir Kan moom sëriñ Moussa Fall ñu tudde ko sëriñ Fallilou Fall mi nga xam ne ni moo des fii ci géej kon bisu 8 mai buy dimanche 14 heures soxla nañ góor yàlla yëpp ñu teew ci arc de waaye waxuñ ci wetu Minoma ba ndax ren defuñu dépôt de gerbe dañuy ñëw ci wetu monument ba fañ ñu autorisé pour ñu mën a defaane marche bi marche la paix ba place de Madeleine ak baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah wone ñoo ñi nga xam ne nii Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo leen yabaloon fii ci ndigal ban wàcc Serigne Cheikh Bintou moom mi nga xam ne nii mooy xalifa Cheikh Modou Abdoulaye Fall ndax bu nee sëñ Falilou Fall ku mu ameel bor rek Cheikh Abdoulaye Fall Ndar moom la bokkal ndey ak baay kon mbirum Serigne Falilou Fall Serigne Cheikh Bintou moom Cheikh Modou Abdoulaye Fall moo ko yor ndax bu nekkal Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar kon Serigne bi dina ñëw ànd koog délégation bu am solo ñëw ngir ñu fàttaliku sunu maam yooyu ñu sàkku Baye Fall yëpp ñu mobilisé wu kenn ku ne nga am pas-pas kenn koo xam nga yëgal ko bis bi. ñu lancé appel fu waaye taalibe mën na ne ci àdduna bi rek ba États-Unis ak Italie ak Grèce ak Suisse la xam nga tubaab lan la xam muy mbooloo bu ñu gisee ñu mobilisé wu mbooloo mi bari faw ñu wane fa sëñ Fallilou Fall nekk loolu lañ soxla ñu sàkku Baye Fall yépp nag ak soxna yi ñu mobilisé wu ci bis boobu muy 8 mai ñu ñëw ca Arc de Triomphe fàttaliku soldaar yooyu nga xam ne ni Sëriñ Touba Xaadimu Rasuul moo ñu fi yebaloon ci ndigal laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah